asalaamaaleykum sama mbokku internetu Sans Limites TV ah, mbégte ak joie ah, seen doom seen xarit Fatou Mbaye nee la lépp loo xamante joie la lépp loo xamante actualité la lépp loo xam ne people la nee naa leen doo leen ci wet benn bi soit ndaanaan bi ñëw nee leen lépp mën a nekk sot seet def si la tey nag damaa invité ndaanaan ndaanaan bi nga xamante ràññeeku na ci li nekk ndaanaan bi nga xamante mën na li def ndaanaan bi nga xamante tubaar li muy def lool euh, muy papa bongo papa bongo bi nga xamante ne mooy borom famille sénégalaise papa bongo bi nga xamante ne mooy borom bongo lamp fall bongo mu mën li muy def tubaar fa kala macha allah mu ràññeeku nee naa leen ndaanaan la ci biir ndaanaan te dootuma leen ko présenté damay bàyyi papa mu nuy am internet sans limite yi nee face à face lépp mën a nekk sot ceeg def si la Fatou <laughs> nga jongoma ba nerve say maam tubaari kàlla am personnalité am qualité tubaari kàlla ci diggu réew mi réew mi respecté la yow boo ma woowee lu ma jàppoon dama koy bàyyi ànd ak waa làmp faal bëggoo ñu ñëw ba mu mel ni tufee jaan je suis là papa Bongo borom aaw bi ci kër gi xam nga ne aaw bande la. Mhm, mhm. papa ginnaaw bi nga nuyoo àddina nuyu waa Sénégal nuyu suñu mbokku internet sans limite TV comme ni ma rek mi ngi ci yëngu euh, papa ñi bàyyan la nga waxtaan ak sénégalais yi nga wax ñu noo def ba intégré li nga xamante ne mooy famille sénégalaise parce que ci lañ la gën a gis ci lañ la gën a ràññee ci nga ràññee ko ci la la sénégalais yi xamee. waaw avant tout Fatou Mbaye maa ngi remercier waa Tëngéej suñu jugee ak waa Bargny ak waa Sénégal ndax ñun ñu ñu bëgg dafa bari tubaarikàlla di gërëm nag waa famille sénégalaise di gërëm musa Ndiaye di gërëm madame Ndiaye tubaarikàlla di gërëm sa nuroo waale sama jumelle bëtóor <laughs> mbaye tubaarikàlla ndax moom bu nu ñëwee famille sénégalaise loxoom mu ngi ci moom moonu fa woo kenn du moom ba musa Ndiaye signé contrat bi ñu ak moom di gërëm sagar sama xarit sagar kenn du moom yàlla na ko yàlla defal jàmm ma sœur adorée ngi lay nuyu borom Maroc. di gërëm tamit maar loo. Mhm, maar. di ku baax maar bu gisee sama appel rek damay décroché. Mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mhm. di gërëm àlla. di gërëm biige ku ma ku ma ku ma limu rek. dama juum. papa intégration bi noo def ba dugg fa. ok soxna Bator Mbaaya sa xarit. waaw Mbaaya Mbaaya sama waa bi ma ñëwee dama doon ñëw bi Mariétou di def euh, di di di xewle. ñuy niróole jaune jaune yi. ci lañ ma si lañ ñu signaler contrat bi. Mhm, da nga am contrat. waaw mhm. ci laa fa signé contrat bi bi ñu signé contrat bi nag après projet yi commencé dox. Mhm. création yi commencé dox. comme que ñun ay Guinée tubaarikàlla noonu la demee. Mm-hmm. papa bi nga bi nga intégré li nga xam mooy famille sénégalaise nga gën a ràññeeku euh, ñi gën la ci ràññee gën la xam euh, loolu nan ko dundee en tant que artiste boo xamante ni tey mënoon nga dund ba nekk ci li nga nekk kenn du la xam wala ci benn côté rek lañ lay xamee mais ñi xam la partout ci li nga xamante ne mooy àddina Sénégal euh, ci famille sénégalaise. mbaay yàlla mooy borom jaam ñi. Mm-hmm. mooy benn star koo koy star bi. Mm-hmm. exacting ñii ñoo seen ak soxna ba tey ñoo see famille sénégalaise ak dañuy kontaan dañuy am mm-hmm. fierté boobu. parce que ay doomi sénégalais lañ. Mm-hmm. te nag ay du ne ay ndaanaan lañu loolu artistes ya ko xam seen biir. Mm-hmm. am déet ñoom ñoo ko xam seen biir. kon tey dañuy sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di xam ne lépp lu nu am rek sunu sunu borom moo nu ko may ak sunu ñaanu waajur. noonu la kaa mm-hmm. papa nga dem ba euh, ñëpp ràññeeku la ci Awa Bandi la euh, mu nekk loo xamante ni yow yaa ko jëkk a génnee fii ci senegal Awa Bandi la Awa Kooba la euh, integration boobu ak inspiration bëggoon nañu xam loolu nan nga ko dikkee répétition la wala da nga toog texte boo bind wala pour ñu comprendre. dugg nañu Facebook Mm-hmm. tëbuma rek ne bandi baa ngi nii de mm-hmm. na ñuy bàyyi mm-hmm. xelu jàmbur yi ñuy jël di ci am xaalis di ci bànneexu di taxaw di dëgër fit ci tele bi na ñoo ko moom na ñuy bàyyi loolu artiste day tas am xelam di liggéey guddi gi riir moomu ñëpp xam nañ ko ci réew mi gis nga fa ma commencé way wi ak fa way wa teeree loolooy way wi papa Awa Bandele bi dafa bari coow kii naan maa ko moom kii naan maa ko mel ni Bass Thioung ku mel ni Ibro Ñaajo na ko ku euh, mu nekk loo xamante ne yow yaa ko moom euh, yow yaa ko fi njëkk wax mais tey gis naa ni coow li dafa bari ci Awa Bandele bi tey boo amoon loo ñuy leeral ci loolu tey lan lay doon parce que coow li bari na ci Awa Bandele bi xëccoo bi bari na maa ko moom maa ko moom Fatou Mbaye yaa ma mhm. man du ma tudd turu kenn di ko may buzz mhm. ñi ma limal noonu mhm. du ma waaye sénégalais yi may seetaan ak aawa yi may setaan ci réew mi mhm. xam nañ ne boroom aawa bi ci kër gi xam nga ni aawa bandi laa ngi nii taxaw mhm. barki Serigne Saliou mhm. keneen ku taxaw ne bandi bi yaa ko moom da nga koo sàcc lu leer laa lay wax aawa bandi la papa bongo ko créé way ko soxna bëtër chaque fajar ñu teg bande annonce bi Sen TV réew mi daanu lan mooy kaa papa yaa ko moom nañu bàyyi di ci am xaalis. di ci voyage mhm. di ci dem fu ne. dëgër fit nañ bàyyi loolu. Mhm. aar bi tollatul foofu. Mhm. papa yaa ko moom euh, tey waroon ngaa mën a def loo xamante ne tey bu ko nit dee jël sax danaan ci papa laa ko jëlee est-ce que tey lu fët bi tey nekkul ci yow. Fatou parce que fët bi nekkul ci man xam nga lu tax. maa ngeeg yeneen yoo xamante ne moo gën a métti aaw bandi la te lu ci kanam rawali bët. man fu ma dëkk Tëngéej fu ko ndaanaan di jaar kan la Adja Xaar Mbay ma jaaga mm-hmm. fu mu dëkk mm-hmm. Tëngéej mm-hmm. dama tontu Tëngéej Ismaïla Lo fu mu dëkk Tëngéej Tëngéej waaw Tëngéej ak Bargny fa la ndaanaan yi nekk tëggkat yi fa la ñu nekk fecckat yi fa la ñu nekk aar fa la ne aar newul fii barki Sëriñ Saaliw Père Ndiouga Dieng Momo Alpha Dieng dégg nga loolu Père Ndiouga Dieng Momo boo nee Xaar Mbay ma jaaga ne góor gi njaay perki sabar gani magay sekk léegi ma ca mu ma samba ma ci am gaar sama mag jooju maam góor jasaaga papa bungo moo gën a ndaw tëngéej waaye mooy maïs bi barki sëriñ Saaliw Mbàkke dañ ñi ma ñëpp samay samay samay kilifa lañ dañ may tiitaroo dañ maa bëgg na ni bàyyi di jël xelub jàmbur di ci liggéey di am xaalis di fayeku te yow moomoo ko yow nga doon artiste am sa jabar sa jabar di aawo nga ne ci biir kër gi Sinabu aawo bandi la tojoon réew mi sa jabar est-ce Sinabu ko woon nga xëy suba taxaw fajar ne man mu bandi bi bu la ragalee ne kii nga baal ma nag bi nga gisee xëccoo bi nan la nan nga ko dundee ay ree ma jàpp parce que xam naa ne ñii temps bi ma toll tollagun ko te li ci kanam rawli gët barki Sëriñ Bamba bis bu génnee nga xam ne kii fawut fawluwul li ci kanam rawul bi dafa àndu mbay. papa xëccoo bi entre yéen xëccoonte bi. xëccoo bi entre yéen bongo maa ne maa moom lii kii moom lii. kii moom lii danga maa woo ci émission bi. Mhm. tubaarikàlla man dama la yàgg bëgg. Mhm. ndax sa personnalité. maa la gën a bëgg. li may wax nii dama am ay géer ñu ma bëgg ndakaaru mhm. mus nga maa gis tiktok ma taxaw di wax. bu ma neexoon ku génn wax ma génn maa ngi sama compte am na doole. ma génn wax maa ngi ak lu leer nañ barki Serigne Saliou sànq lu ma la woon contrat mu ngi nii ma de téel am déet loolu du contrat famille sénégalaise am déet awa bandi laa ngi noonu ñu protéger mu ngi noonu si suuf parce que li may wax am na fu ma ko teg fu leer. wiiri wiiri wu ma jaari jaari wu ma. li may wax fu leer laa ko teg du ma génn ci TikTok di wax. du ñàkkal sama bopp valeur. personnalité dama koy jéem a am parce que doomi buur géwél laa. ñi ñeen taxaw naan bandi bi ñoo ko moom. di ko xëccoo. na ko jël na doon seen muuraay. ndax xam naa su ma leen ko mayee dëdd lay doon parce que xelum jàmbur la ñu jël te ñoom ñi koy wax du kenn ci ñoom ku ne daje naa ci moom xew ne bëri barki Serigne Saliou nga tiit ba ni ma kii du borom aaw bandi la ñu may dégg tudd ma nag turu kenn mayuma kenn bës waaye Lamp Fall joxoon naa ko ci Amina Poté waxoon naa ko feneen ak feneen wax naa ko tey ci Fatou Mbaye sans limite sans limite mm-hmm. lu waay neex na def ku nu fekk xew di nga ñibbi ku nu fekk xew mais papa da mën. ba tey yaay wax de mbaay yow yaay wax de. famille sénégalaise ñu ngi may seetaan benn yoon lañ ma fa woo. bi ma nee bi ma joué ba pare Moussa Ndiaye damaa woon na ma signal naa la contrat. contrat baa ngi nii. sant yàlla gërëm yàlla. talent la wala don la wala loo jàng. loo répété la loo répété loo ko fa fekk. sa animateur bi li ngay animé nii. boo toogul sa kër xalaat li nga war a wax tey. boo ñëwee doo ko wax. Awa Bandi la sama jabar a génn barki Serigne Saliou ma naan koon dinaa takk ñaareel naan koon ñaareel yi ci réew mi dañuy mbaw te duñu matte ñaareel looy siisu nii naan koon aawa baa ngi nii aaw bi ci kër gi xam nga ne aawa bandi la wëyu la kooba la ko bandi baa ngi ko waxee sax dafa yàgg dafa yàgg loolu du géem ko pour man yàgg na du loolu dafa yàgg ñu ngi ci leneen aawa la ñu ci leneen te bu génnee nga kontaan. bu génnee nga xam ne ñii du ñuy bàyyi. papa sa relation yaag Bongo yi parce que Bongo Mané yi ni ñu war a defee nii bokk ndey ak baay nekk benn yaakaar naa ni defuñu ko euh, chaque jour détails yi ci ñoom lay nekk chaque jour coow yi chaque jour xëccoo yi tey lu papa moom diw ni moo ko moom tout le temps même détail yooyu tey une relation nga am ak sa mbokk Bongo yi est-ce que demalante bi dikkalante bi am na. benn Bongo Mané rek ka fay ma tudd xam na boppam. moo fi xëccoo lu ne. bongo maa si des doo dégg kenn muy xëccoo. musiciens yi sax bongo maa ni dañuy wax musiciens yi jël ko dugal ko seen musique. ni bongo maa ñu doole. dañuy yi dañuy wax. da bongo maa yooyu taasu yi jël ko dugal ko seen i musique. kon bongo maa ñooy créer. man li ma fi créer bari na. parce que Serigne Saliou Mbacke mais bongo maa yëpp laa amal jàmm. nga ne benn bongomaan mooy def lu waay. moo fi nekk doon ginax di ci cappe lu waay bënd mu di xëcc ne moo ko moom profito def single def lu ne. def clip te da ngay gis affaire yi day gaaw taf taf. yee génn wala waaw parce que nag clip boobu du dem fenn. ñi mën du ñu wax maa ngi gërëm Ousseyn Mbaye. Ousseyn Mbaye sama waa yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. muy ku baax ku bari jom. ndeysaan ku bari valeur. Mm-hmm. Ousseyn fu mu toog. Mm-hmm. vidéo yaa ngi fii. su ma neexoon léegi dama la koy génne. fu mu toog ci àdduna danaan ñi dàq a créé. dàq a bongo ci àdduna ñoom papa bongo. xale yi ne aawa bandi la. yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm. magum la. mën la lu muy def mbokkum yaayam lam li sàmba mhm. frère kontaan naa ci yow. Mhm. papa say say tournée euh, say contrat say affaire euh, macha allah euh, ñëpp xam nañ la fi nekk nii ràññeeku nga ci li nga nekk bëggoon nañ xam ci projet yi ba xam papa am na ay tournée wala ak équipe yooyu groupe bi macha allah yi nga xamante ni ñu sa ginnaaw di la jàppale di la doole bëggoon nañu xam ci yan nga nekk projet yan projet. comme que aw bandi laa génn. Mhm. ñu dagg bandi bi ne bandi bi ñoo ko moom waaw bu ma la waxee tournée yi duñu ma ci jiitu ah. <laughs> Fatou Mbaye yàlla baax na ñu ngi ci kanam ñu ngi ñu ngi ay projet yu bëree bëri mhm. di la ñaan rek nga dolli ñu ñaan mhm. waa waa télé bi dolli ñu ñaan sans limite mhm. ba li ñuy waajal suñu borom def ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam papa euh, mën naa ñëw ba tey ci sa carrière euh, li nga euh, kan mooy sa idole ci li ngay def amoo ci idole koo xamante ni tey moom moom nga moom nga bëgg ba mu jaral la nga dugg ci bongo man tey su ma doon wax. Euh, idole maanaam idole. koy roy. du la wax sax man ku may roy. Mhm. parce que man rek sama royukaay laa. Mhm. man seul sama royukaay laa parce que man 2006 laa nekk ci bongo. 2006 mhm. ak lii est-ce que gis laa la wax laa nekk ci aaru bongo bi ma koy def ñi ma xam sama géer ñi ma daan woo boobu tollu ma nii. waaye benn bongo man laa bëgg. muy parce que dafa naturel. Mm-hmm. ñoom ñu vié ñaar ñoom ñëpp samay xarit la damay déggante ak ñoom. Mm-hmm. Babacar damay vocal sama xarit la. Mm-hmm. mais Ouzin Mbaye sama waay la parce que day toog ci tele bi di nu gërëm ki nuy gërëm dañ koy gërëm. teg la cas bi lii la papa ci sa carrière ba tey lay ñëw bëggoon nañ xam euh, lu la marqué ci sa carrière euh, mas nga dem ci bongo ñi dàq la wala nga nga pare woon pour jël xew wala dara ñi suuf la dem fa bëggoon nañ xam ci loolu. lenn rek moo ma sama carrière bongo man dama koy wax fii. femmes yi na ñuy bàyyi di engagé bongo man ba noppi. engagé waxaale ak ba noppi. ba dugal la avance tourné waat keneen tourné seen xel. da ngay faral di dund loolu. du jeex. nan ko bàyyi. waxaale ak yow géer ñi ñu bëgg nag dafa bari man ñi may joué dafa bari. Mm-hmm. mais bari na ci ay bongo man man dañ may diñ loolu. Mm-hmm. am nañu programme xëy suba nga gis beneen bongo man bàyyi ko ku ne sa bongo man ku fii ku ne am na ay fans Ouzin Bërëng sa bëri ko sax am na Ouzin Keita am nay fans ku ne ay fans am nañ ko bàyyi moom loolu de laa gis mais boo waxaaleeg nit ki ba noppi respecté loolu. dañ la koy faral di def. du jeex. niñ ma koy defee noonu lañ koy defee Ouzin noonu lañ koy defee keneen ak keneen. te jamono ji fi mu toll bongo yi doxal lépp. ndax mhm. Serigne Touba bongo bu amul ci xew ni la cas bi demee. Mhm. ku la jël tey mariage nga war a ñëw dugal ko tey ci xew noo koy dugalee. ça veut dire. ku la jël tey ci mariage nga ànd ak say bongo ànd ak sa équipe tey nga war koo dugal mu dugg si nan nga koy dugalee. nee ko day baax day baax. waaw Zeyna waaye laala leer ménage jëlal papa ni mu lay dugalee ci mariage xam nga lii tubaab fakkaale macha allah doy na waar am na ma sax envie euh, maam jëkkër nii rek laal heure ménage non kii xam nga faatu tey mhm. boo gisee samay taas sax dama koy dagg mhm. may bañ ku ma yóbbu dëgg la may bañ ku ma sàcc mhm. kat dafa bëri ci dafa mel da ragal a wax sax dama boo gisee man famille sénégalais sax nga may woo ñooñ bu ñu ma wooyee damay mel ni dañuy mel ni kàkkatar barki Serigne Touba dootuma taasooti parce que tey ji émission bi. dina bari bongo maa di fi dugg. ngir loo yóbbu. mais damay tagg samay wax. li ma yor ci œuvre du jeex yàlla nañ la maye. ba ma ñëw. su ma ñëwee. dina mel ni som common corowet os africa control. li la bongo defal li la bongo yóbbu. début bi metti woon na. sant yàlla gërëm. di sant sama yaay lili ma ca mbutaay ma sàmba ma ci am gaar. man sama sama sama début daa métti woon. doom day tontul ndayam. damaa fekk. ma tontul sama ndey. bi may def aaru su sama suñu kër ay ñax la woon. li ma lay wax ni ay ñax. boo Moussa na ñëw ne salaamaaleykum ana papa Bongo man dama daan théâtre 2006. ana papa fii la dëkk. donc da ngay ragal a dugg. ndax situation kër gi ndax situation kër gi da ngay gis mère bi toog ci biir kër gi. mu mitti woon ma trop nag ma màgg waale ko. boo ne woon salaamaaleykum sunu kër étage baa ngi la téem. jeeg ba ne woon si kër gi nday seet. sama yaay. na matul dara lii ma ko defal. léegi moo tax bëgguma ku koy doyadil ku faalewul leket faalewu ma la man barki sëriñ Touba sama gaa yi sa jun ñu xuloog man dafa yow doo ma dimbali ngir yàlla yow jour bi nga tegal ma batterie tegal ma lii wag lii wag lii man ni leen man dama bëgg di gis bongo di gis cung yi lii ñoo ko njëkk def ci réew mi cung cung yii koo fi tegati muy bongo man laaj ko ku njëkk a def lii mhm. barki Serigne Saliou mais papa yow fan nga nekkoon ci réew mi rek déggoo li ma la wax. man du ma dugg ci TikTok du ma du ma du ma def vidéo. naan maa ngi léegi mais gisoon ni tey loolu dafa baax ci sa image. waa xam nga nag booy dem bay def TikTok. baa ngay def dara lu am man dama am ay doom. te damaa nopp sama jabar. bëgguma lu ñàkk fayda man ñi ma àndal sax ñàkkuñu fayda ki ci gën a ndaw kii ñàkkut fayda. Mm-hmm. mooy caat. yee. caat. Mm-hmm. kële ci ginnaaw ñàkkul fayda boo leen gisee da ngay xam ne respect est il faut avoir am déet. kon bongo man daa war a am fulla am fayda. xam nga ay wax neex na. waaye boo defee dañoo war a xam ne daa da mën de. li may joué fii. yow mi jàkkaarloog man su ma mënee xam nga su ma mënut xam nga. ne ko dama koy digal. mais papa lan la. dama koy dagg nga ni bàyyi lu ñu génne. ngeen nekk fuuf te duñu xool. sàcc yi ñoom ñoo moom lool sàcc yi. dañuy kéré waaye. nañuy tëdd di kéré. très bien. esprit dafa metti mhm. papa Bongo lu mu créé ñu ne ko fuuf sàcc. Mhm. te ñun dañoo déggoo dañuy répété. nañuy répété te bàyyi wax ji bàyyi tiktok bi. da ngeen faral di répété tout le temps. lu neex. Mhm. Ah! macha allah tubaar fakal nee naa leen face à Fatou ndaanaan laa invité euh, su ma neexee sax ma jël roi bi capitaine bi takkal ko ko ndax meilleur mën na li muy def macha allah te talent bi mu fi te nee na nag bëggul wane lépp parce que bu ko wanee dañ naan ko fuux bàyyi koog moom euh, tubaar fakal papa bongo mi nga xamante ne papa bu àddina la euh, papa bu Sénégal papa monde entier tubaar fakal borom famille sénégalaise tey moom laa dalal papa sa anecdote loo fàttalee ko lu sa yaay dund loo xamante ne tey boo ko fàttalikoo day tax nga gën a am jom boo ko fàttalikoo tax nga gën a téye sa man dama judd rek sama papa gaañu. ndeysaan. te xam ne dama am jom man. damaa bëggoon mu fekke loolu. comme ni nday sekk toogee kër ga ndax mu dara bu yeewoo suba ndekkeem ñëw añam ñëw rek mu fëlaale tëdd noonu laa bëggoon sama baay di tëdd ci côté bi. loolu moom metti sama life. barki maam Seydou. ban souvenir nga fàttaliku ci sa papa. dara. ndeysaan. maay caat maa ngi gërëm sama doomi baay ñu nekk cees ndeysaan. di leen gërëm ñoom ñëpp waa Sambeen du lim nag ndax ku lim juum. naw la daa foor di gërëm waa Jurbel sama yaay ji nga xamante ne moo ma yar. daa foor sama yaaram. maa ngi koy gërëm bu baax a baax. di gërëm sama mag ji ma yar Basirou Thiam. Mm-hmm. mooy chef de bureau de maire bu Jurbel. maa ngi koy gërëm bu baax. di gërëm nag daara sëñ Mame Mbaye Cissé falaayam falaayam mhm. papa sa carrière euh, bëggoon nañ xam ci yan projet nga nekk euh, yaa ngi ci label wala am na label boo xamante ni tey mi lay contacter euh, pour liggéey ak yow bëggoon nañ xam ci yan loxo nga nekk ak ci lan nga nekk actuellement ni ci say projet waaw fi mu toll nii nag maag sama mag ji dama la di dama laa limal sànq na la foo ko naan di jaar na la xaar may ma jaaga mhm. sunu maam Diop yàlla na ko yàlla defal tawféex mhm. yàlla may ko wér sama mag ji magee dafa am ci lu ñu nekk lu rëy. Mm-hmm. sa mag ji. magay sekk magay sekk daa am ci lu ñu nekk lu rëy lëli ma ci mu taay ma sàmba ma ci am gaar. Mm-hmm. maa ngi koy gërëm. Mm-hmm. di ko sant maa ngi waajal lu rëy daal ak yeneen ak yeneen. ak Serigne Touba maa ngi waajal lu bare bare bare. bilaay waxal ak say fan say am di jàmm nga xam ne rek lañuy ñuy topp. Euh, bëgg la te amuñu occasion bi pour wax ak yow. waaw xanaa joxe numéro bi rek. ba noppi di gërëm ñi nga xamante ne dañoo bëgg te gisuñu ñu dafa bàyyi Fatou Mbaye ndeysaan bari na ñoo xam dañoo mais papa taxawal nag nga dëggal sa bopp di def ay vidéo même bu dee vidéo dix minutes voilà Fatou ngay dëggal sa bopp ci TikTok bi ah man sama TikTok loolu sax na ma ma jox ma micro ah caat euh, lan mooy fulla <laughs> kii nag xalil. papa kii mooy kan. kii mooy xalil Kara. gis nga bongo maan. bongo mhm. maan yi boo leen dafa a na complet. waaw dama lay fa dama déggoo dama dafa am lu ma làq lu bari. Mhm. lu ndaw lii ma ko joxoon micro nga kontaan ci moom. Mhm. jox ko joxal caat mu doxal mais dama la bëgg wax na la groupe bi. complet nañ complet goo xamante joxal ma caat mu doxal dama koy jox léegi. koo ci am na lu mën na. barke Serigne Touba Mbacke macha allah waay. xam nga li muy woy nii. Mm-hmm. ba tey ñu ngi ci bande bi de. Mm-hmm. te des na yeneen. Mm-hmm. yoo dégg googu. moo tax man la maa ngi ñëw. man du ma nekk ci tiktok di wax man lu ma wax œuvre la. waxuma ana ñi ko bëgg ak lu mu naan baat rek de. déggoo ko fi de. concours ñu bongo. caat doxalal ñu xool waaw waaw. Lamp Fall Bongo. yéen a ngi toj sans limite. mais Bachir Bachir lii lan la face à Fatou tey tubaab fakkaa la macha allah nee naa leen dañoo gën a innové gën a yokk nee naa leen le ngeen yokk seen i abonné may gën a dolli ñeex di gën a yokk sama puissance ci li ma mën macha allah Lamp Fall Bongo yéen a ngi toj fii yéen a ngi mais caat doxalal way yaay nga ne ko Dakar ka xam cum déggal loolu mais man daal man Bachir émission bi nañ ko yemale fii nañ ko yemale fii comment va Bango waaw ne ko ceeb a gën cee déggal loolu papa macha allah tubar fa kàlla nee naa la li xaj ci li duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin li nee naa la lamp fal bongo complet soo amee mariage réception tour lépp loo xamante ne rek euh, bëgg nga ñu xumalal la ko ambiance la danga nga leen woo mi papa borom aw bandi la